si téeméer ak ñeenti test yi ñu def ñaar ñoo si positif bon nag ñaar ñoo si am jàngoro benn bi cas contact bu ñu doon suivre la benn bi kaawu transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi fukki patient ak juróom-ñeent wér nañ si ñi ne woon hôpital danañ leen génnee si bés bi ñu yëgal leen itam ne ñu nekk hôpital ñu ngi yëg tan ba mu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom-ñett fukki cas la Sénégal déclaré ñu yëgal leen itam ne si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ñoo si wër ñaar genn si àdduna kenn ñu évacué ko bon ndëg ñi nekk hôpital tey di faju tollu na ci téeméer ak juróom benn ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi ñaan population yépp ñu respecté bu baax li ñu leen diggal pour que xeex bi ñuy xeex Covid 19 ñu mën ko gañee ci nu mu gën a gaawe maa ngi leen remercier.